ci ndab fotaat ci ba ñu ñeel benn lamb mu am naka sudul noonu ci la kilifa yu mag yi muy le commandant du corps urbain ak le commandant du GMI de Dakar dajaloo waxtaan ñu indi fii le commandant du corps urbain ak tous les di du GMI ak CNG ñu waxtaan ci lañ trouvé solution yi moo tax léegi normal na. waaw gis nañ ni tey stade bi car macha allah policiers yi bëri nañ fi par rapport ak dimanche. waa xam nga euh, dispositif lay doon rek léegi dafa am dispositif bu ñu teg bu ngeen ko filmer sax da ngay gis barrière daf ñuy jàppale le GMI daf ñu léegi ku tëgg làmb rek daf lay abal juróom fukki barrière GMI pour gën a régler situation ba pare ñu ne mbar mu nekk booy génn ci sa cumeekaay benn accompagnant moom nga am loolu moo war a nekk loolu moo daan nekk sax te loolu mooy konne ba faw xam nga ku xamul sa droit doo laaj sa devoir. moo tax tey làmb ji làmb ji xajamul tey. mais tey ñëppay seetaan ku lëmbe ñu lëmbe la amul problème. dimanche bii ñu génn li xewoon ci stade bi lan nga ñuy wax. waaw d'abord d'abord di ko ñaawlu kenn du ko rafetlu violence kenn du ko rafetlu day tax rek ñu waxaat xale yi rek ñu gën a ànd ak yar parce que dañu seet phénomène waxaat tey bu séntu jël ay matuwaay man nañu problème ci làmb kon war ñoom mbër yi war nañu seet ñi ànd ak ñoom. écrit yi aussi war nañu gën a yar xale yi ñuy xool ñi ànd xale yi parce que suñ ko bàyyi woon tey keneen ne def ëllëg te booy liñ jublu mooy mooy yéen ñu wane leen ñu naa maa def nangam wala di woon nangam te loolu rafetul kon ñoom ñoom moom laam ñoom bëri nañu assainir seen ginnaaw seen ginnaaw nañu koy raxas xool ñi ñu bu leen kenn yàqal ñoom ñu yaakaar laam man dama am sama liggéey bu ma xëyee ci laay nekk ñoom laam ma leen yaakaar buñ leen di buñ leen di jàppale nag nañ jàppale seen bopp xam ni CNG muy CNG keneen ak keneen ku ne jàpp naan jógul pour añ mbër wala sanctionné pour képp leneen. mais ñu gis ne keroog service d'ordre bi dafa néew. waaw xam nga euh, certes man na mën nañu service d'ordre bi doyul d'accord mais euh, gis nga Fatim bu fi mil nekkoon te amuma yar man man du sotti xam man dama contre d'accord service d'ordre mën nañu fee bari mais bari ak doy du benn na nañoo bari te duñu doy man nañoo bari te duñu doy. ñun ñoo war a xoolaat suñu toogaay suñ sut làmb comme ñu dañuy weexu dung lu jóg ñun làmb ñun làmb ñun ñoo war a xool suñu toogaay ñun ñëpp nag à l'ensemble te waxante waxantey saweeg der yeeg ak digu fee digu fee amul njëriñ nañ ko assainir ñoo bokk ne ñoo bokk bàyyi nañu waxante lu rafet di wax lu rafet fee fekk assainir làmb ji muy rafet loolu mooy li gën a rafet mais yenn yi amul benn sens